Amadou Bara Dolly mais fàttali na ba tey yaa ngi ci mm-hmm. yaa ngi ci face to face lii foog ñu parce que man xam nga nekkuma fi woon mm-hmm. mais je pense que mm-hmm. ci ginnaaw est-ce que defoon nga ci émission bu mel nii waaw non jotuma cee def waaw jotoo ko moo tax te comme fi mu ne nii dafa am ndax ci kanam waaw dafa am beneen mbubb boo xam ndax actuellement da nga war a waxtaan ak sénégalais yi ndaxte dafa am si comme ni ma ko waxee mhm. euh, yow dangaa bëri ay casquette mhm. homme d'affaires bi mhm. mooy lu néew lu sénégalais yi xam sénégalais li ñu gën a jàpp si yow mooy sa maam boobu lañ lay xoole di sëñ Touba waaw mi nga xam ne euh, dëgg fa yàlla ñu ñëpp yàlla ñu yàlla taas si barkeem bu weesoo loolu tamit euh, mooy li nga yor muy politique donc lu mel nii bu amee comme ni ma la ko waxee c'est une première mondiale Sénégal la am donc lu mel nii tamit foog te am na ay kàddu yoo xam ne mënuñu ko fi yëkkati ndax it tamit bu weesoo nag cër bi ñu jox yow na tamit dëgg yàlla loo xam ne ñi ñuy seetaan tamit uh-huh. ak say taalibeeg yooyu yëpp foog ñu uh-huh. ormaal leen ba uh-huh. am na yoo xam ne mënuñu ko fi wax donte nag am na loo xam mënul ñàkk ndax euh, man fi ma bëgg a taxaw dëgg mooy euh, man ngoro yoo bi moom man personnellement man en tant que ki seetaan observatrice rek sénégalaise ak te yow euh, xam nga ne xamante nañu bu yàgg man ak yow donc man moo toogee rek nii dégg loolu ngoro yoo bi man moo njëkk a moo njëkk a moo njëkk xajam samay nopp ndax nga ngay yow kilifa diine yor ay soxna macha allah. di ngoroyoo ak soxna jàmbur ak mm-hmm. jigéenu nu ñu ko waxee jabaru jàmbur mm-hmm. loolu man sëñ bi loolu na ko loolu naka la la mën a dalee waaw soxna si xam nga mooy li ma la wax léegi nii mm-hmm. dafa am loo xam ne dama la koy wax xam nga politique boo ci xasee ba dugg bay boo nga lu mën a ñëw rek yow posé nga ma question boobu ci njaal ben gi lu nekk rek bay boo nga <laughs> song nee naa la mbir mi ngoro dafa doon beneen mbir ndax dama la yonent bi sax dana la sa soxna soo ko bettee góor yow ci sa boppam doyut demal indiwaat yeneen ñeenti nit ci ah, am na lu mu ci wax ay preuve yu leer kan moo la mën a wax ne la mag ngi ndaw si dañ doon goro lu dul génn ci ay journal rek ñu wax ne dem doon goro ca mm-hmm. nee naa la ba ba ñuy porte plainte mbirum mbirum portable ak agression mm-hmm. buñ demee nag ba juróomi mbir tege ca ya gën a diis ci mbirun yu nu teg doomi adama waaye loolu moo indi lépp ca it nee la mbir mi lobbying politique la woon dafa am lu ci rax loo xam ne moom laa bëgg leeral Sénégal lan la woon waaw euh, am na ci xam ne nii sama xarit bu ma jege la ab la boo xam ne nii mën naa wax ne mi euh, euh, kun xam la koo xam ne nii mi ngi yor journal Allo Dakar mais mbir mi bi mu amee am na ñoo xam ne ba sali lan doon woo ay journaliste di leen neexal xaalis ne leen bind leen lu ngeen mën a yàq ci sëñ Modou Bara Dolly yàq leen ko ndax it mbir mi dafa am lu ci am neenaa naa la ndaw si kenn mënut a wax ne ba léegi si dan doon goromaa moom kon ngoro googu nga wax wala am na loo xam ne maag moom seqoon nañ ko ay coro lan woon ñoo bokkoon di liggéey kon ngoro yooyu amul woon déglu sama doom hmm. mi ngi woon këram mu yar ko moom ci jëmmi boppam dañ daan ànd ay voyage Amérique dañ doon ànd di liggéey waaw ci sama xarit soxna la woon hmm. Hmm. sama kër sama wàllug soxna sax bu amee woon problème yu bari dañ ci daan waxtaan ak moom kon da nga gis ne foofu bi mbir mi amee man sëñ du Bara Dolly ma dem porte ji plainte ci xaalis bu ma yoreel moom mu def dem def porte plainte après ah waaw ñu indi ci affaire agression portable ak euh, vol portable. Mm. ñu xool xam ne lii sëñ Modou Bara Dolly li nga wax léegi ëpp na yaakaar naa loolu. Mm-hmm. man ki nga xam ne moo nekk ci suuf euh, euh, nu ñu ko tuddee ci tribunal parc. Mm. ba ma ñëwee dana ma sëñ bi lii ñu la fi indee dëgg dëgg mbàkki lii moom affaire yi caaxaan la xanaa ñoom xamuñu xamuñu la ndax lii moom léegi mu jeex ndax lii kay doo doo sax. mais ma toogaat ñu yóbbaat ma garda bi ma toogaat ñu yóbbaat ma garda bi ma toogaat ñu yóbbaat ma garda bi la lan demee ñu dikk ci ay yoon ak menace de mort ay santas ay vidéo yoo xam ne kenn mun wax ne ana pour la tegal yaakaar naa fii adduna bi nekk bu fekkoon lu mel am na kon yaakaar naa internet bi yaa ngi ko ci gis muy tasaaroo mm-hmm. ko ndax nag dañ ne buñ suturoo esthétique sëriñ bi nga xam ne moom du ma ci dégg mukk egsi te lu mën di doon moo ma gën a lu mën di doon muy sëriñ Tuubaa ji mm-hmm. tey nga gis ni dugg naa ci beneen bubu politique boo xam ne bu ma yemoon tey ci sama course gee mm-hmm. tey lii du ci fekk tey waaye nag ñàkk yam googu ci sama euh, course googee dugg ci wàllu politique dugg ci wàllu euh, euh, économie réew mi muy opérateur économique moo ma jurulu mais sëñ est-ce a jël lépp rek ko Euh, ay lobbying politique ay kër. waaw ah, maa ngi yomb na trop maa ngi ñëw ci loolu. Ah. nee naa la euh, ki nga xam ne moom laa seqaloon affaire bi. Hmm. mais dafa amoon ay xarit ci ci ci ci ci ci euh, régime bi. Hmm. muy ñoo xam ne nii am na ci ñoo xam ne ay ay la noonu ah. ah kon lu mel noonu tey bu fekkee ne lu mel noonu jëg na tey am na ñeneen ñoo xam ne bopp sëñ Modou Bara Dolly soxla woon nañ ko ci wàllu politique bi waxtu woowu mu jaroon loolu ne. Hmm. am na ñoo xam ne soxla woon nañ fédération ca boobu bokk naa ci ñoo xam ne damaa contrecarré woon loolu gàntal loolu xam nga soxna si dafa bari lu ne ci biir parce que booba jamono yooyu Karim laa àndal ci politique bi mhm. àndu moo ak moom moom sama rakk la àndaloon sama rakk boobu moom la fexe ba ban dugal ko ci liste bi nga xam ne mooy mooy liste bi mm-hmm. te ñoom ñëpp xam ne ne la waajur yi sax man maa ko jiitu ci wàllu politique mm-hmm. kon tey am na ñoo xam ne man dama leen doon déranger mm-hmm. waxtu wu man di doon nee naa la déranger naa leen waxtu woo Macky Sall nekkee ci biir régime bi dama leen doon déranger bi ñu ba nga xam ne Macky Sall génn na ci régime bi ma des fi ma Karim parce que boobu nit bu nekkee ci parti mu il faut nga am di leen déranger ndax waxtu ne gis na ne maa ngi def ay sorti jus alhamdulilah suñu borom teral na ma mooy Serigne Touba ci kattanu Serigne Touba du ma kenn jox na ma dërëm du ma ci nguuru Ablaye Wade ci la amee teraanga am naa ko ama Ablaye mm-hmm. na ñu ma doon déranger ci biir parti bi kon tey problème bu mel noonu bu amee am ñeneen ñu may déranger te ndaw si amoon na ay xarit ci biir régime bi mm-hmm. ah kon mm-hmm. yaakaar naa ne dana yomb lool sëñ Modou def plainte ndaw si def plainte ñu indi ko ci ab sàcc portable ñu mujj indi ko ci ay yoon ay agression mais mais mais sëñ bi ñu ñu dox tuuti ci émission bi cest à ni nga waxee euh, comme yow euh, am na noo xam ne noonu mel sër sër bu weex nga ci mm-hmm. Sénégal mm-hmm. ni ko mën waxee loola gàkkal dafa yomb mm-hmm. lu dëgg euh, et loolu mooy war ne dafa am lu bëri loo xam ne ko war a mais man nga nga ma benn laaj laa la bëgg laaj ndox mooy euh, ngoro yoo bi am na wala amul. ngoro yoo bi amut ngoro yoo bi amut. loolu moom doonul loo xam ne nii mën nañoo wax rek mooy li ma la wax léegi nii na la am na ci loo xam ne nit ki digganteem ak boromam wala diggante mag kam ko seqal moom la ko dund tey nit ki mën na ni gis soxna asu bis bi sax nga dugg sama kër gi ca la ne leen seq maa yow. ah am leen ay colère xëy na leneen lu seq muy colère mais mm-hmm. nit ñi duñ ko gisee noonu buñ gisee ñaar ñu ànd wala ñu gis ñaar ñu dugg ñu ne nangam mm-hmm. nangam mm-hmm. la plainte ba muy jëkk problème xaalis la woon la yaakaar naa ay lu am la wax huis clos ñuy dem ba yàgg bis bu set première passe ci journal yi moom nga koy lire télé ya ña koy génnee ah ca ñu ne wàllu wi ko loolu lañ koy def loo xam ne nii da yem ci seen wàllu biir mm-hmm. kon am na leneen lu ci rax ah, waaw mais mais sëñ bi xam nga lu ma jaaxal ci affaire euh, yoo bi euh, mooy euh, ndaxte je me rappelle ci ci procès bi mm-hmm. tribunal justice génneloon na mm-hmm. defoon nañu réquisition ci téléphone yi doon nañu génneel ay ay peut-être ay messages ay affaires yooyu yoo xam ne yéen ko doon envoyé te tamit je ne je ne me pas dégguma daal foo xam ne yow ci biir tribunal weddi nga ne ngoro yoo amul xam nga dafa am loo xam ne waaw lenn lu ci ne nee la bu jegee mm. ak ñëw ci nit ki ak na fa nit ki di tontoo nee naa la mm. lenn lu ne dana jëg wax ko ci yow man nga ne déedéet mm-hmm. waaye ñu jëkk ngir soxla ci say bopp da nga xam yow naka nga war a def ak loola ak fan nga ci war a mën a jaaree ci loolu ba génn ci loola mm-hmm. nee naa la sama dernier suur bu mujj mujj gi dama ne lu mu def rek baax na suñu def na lu mel noonu luñ ci dogo rek ànd naa ci mm-hmm. mais fan yu njëkk yi dama ànd ak moom ci lan ma woowee tontu ci lan ma wax lu ci ne ma joxe ci ay tegtal mais yi nga xam ne tey moom lañ doon wax naan am na la ay arrestement ay yooyu yaakaar naa tey internet bi wala feneen mhm. feneen yaakaar naa foofu mooy dañuy dellusiwaat foofu ma am tuuti lu ma la ci mën a leeral fu mu la mhm. mooy nit ki buñ ko gardé à vue trois jours di xool ne moom ci jëmmi boppam gis na ne kii kat jëlu portable la ak euh, agression bu demee ba yooyu juddoo ci mhm. ñu toppaat ci tey ba yoon tey wàññikuwaat ne teggiwaat na yooya setal na yooyee waaye la des mooy portable boo xam ne yaa ko jëndoon facture man na wax ne yaa ko jënd yor say facture ah, la ma wax ne lobbying politique boobu am ci. Mm-hmm. moo indi lépp loolu nag am na lu ma ci ñaanoon suñu borom tabaaraka taala ñaan ci Serigne Touba bi nga xam ne moom laa yaakaar. Mm-hmm. ban ma jëlee euh, foofu yaakaar naa da ci ñëw bu ma jógee Rëbës jëm pavillon spécial ñu dugal ma ci chambre 4. Mm-hmm. ba ma fa demee yaakaar naa ne tey ci jamono yii am ña nga xam ne pouvoir ba nga xam ne dama cee àndoon di ko dox di ko dox ba tey ñu taxaw yor réew mi 12 ans joxuñu ma ci ni poste leneen. joxoon ñu ma ci cërale ma ci leneen tey jii wàññi ko ñu defal ma ay lobbying politique ba yëkkati lu toll ni teg ko ci sama jëmm ji yaakaar naa ne tey ku dut yàlla mi nga xam ne booy fexe bu nekk ci biir fexem suñu borom ngay jël ak Serigne Touba moo ma muccal ci lu mel noonu. Mm. waaye yaakaar naa am na Serigne soo xam ne tey ku mel ne Serigne Xaadim lu ko tuumaloon ay problème xaalis ci ay banque banque yaakaar naa ne duñ ci dem ba bakkan li ci war a mën a wadd yaakaar naa ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii tey sëriñ si yu ci ma jiitu jaar nañ ci yoo xam ne nii tey mooy continuer ba léegi si man moo tax may duggaat foofu ci question bi ma waxoon ma ne la am na loo xam ne ni am na ci biir loo xam ne ay lobbying politique waaye am na loo xam ne ni tamati am na ci biir loo xam ne ni tey yaakaar naa ni tey bu doon tourné euh, mbir mi tey ah yaakaar naa ñoom ña ko defoon tey sees ba ma doon toog euh, euh, ka ma doon enquête ak brigade ba ma doon enquête tey moo leen di enquêtaat tey